deuxième chose bi nga xam bokku na ci li indi coow li yeb dafa di bi Cheikh Dieng jëlee li wax moy ONAS dafa créer li wax brigade brigade d'intervention rapide parce que si on ay mbënn ñu woko ko dafay intervenir rapidement pour régler problème bi automatiquement bi mu tagué en place cette brigade là li mu commencé à recruter ay nit placer dans la brigade ba or en matière de recrutement qui office national wala donc dans les grandes sociétés nationales il faut forcément que le conseil d'administration soit au courant de nous accorder l'AC. bi koy def le conseil d'administration n'avait pas donné son aval ànduñu ca ak moom mu indi coow digganteem ak ki nga xam Kilifam, moo le ministre euh, de l'hydraulique et de l'assainissement ñu xamal ko ni amul droit mu def loola mais coow la indi ñu taxaw muy deuxième contentieux premier contentieux wax naa leen bi mu xëysee comme ni tukulóor yi di waxee xayoo xayoo entreprise yi nee nañ dañ koy xayoo xayoo daal di ko indil benn oto 4x4 Land Cruiser pra Land Cruiser Toyota Land Cruiser boo xam ne quatre-vingts millions la ministre am yëg ko ñu ne ko lii delloo ko li muy def mooy jaayaat oto bi encaissé ñu dem ci deuxième problème bi cette brigade rapide bi nga ne le créé alors que amul Avalou conseil d'administration bi pour mu def ko deuxième problème troisième problème bi que euh, dafa ñu des ñu ngi wax ñu ngi des ay problème ay deal ay marché ay conflit affaire ba leen ci système bi nga xam ne ñu xalaat ni dafa am entente direct ak ki nga xam ne mooy Mamour Diallo la nit ñi wax mais li nga xam ne mooy li nga xam ne bokk na ci li indi problème yi mooy le troisième point kii nga xam ne mooy DAF mooy le directeur administratif et financier bu ONAS moom euh, Cheikh Dieng mbokkam la ay doomu nijaay doomu bàjjen la te loolu déjà DAF bi ak euh, mom lien de parenté bobu conflit d'intérêt la donc li mu def moy xamale lolu autorité mais deuxièmement li mu def bu fekkee dafa bëgg top li nga xamné moy muy jub jubal jubanti bi nga xamné mom moom woté moy mu fexé ba nga changer la du poste mais defu daf ko maintenir foofu trois points auto bi. Euh,

mu jël si automatiquement ñaari entreprise du mu tuddu tour entreprise yi mais buñ ci yeggee bu fekkee ne euh, coow li dàkkut dinañu gën a joxe ay indication ak information si entreprise yooyu li mu def mooy ñaari entreprise yooyu benn bi dëgg la am na expérience mas na liggéey ci loolu ñu ko sant mais deuxième entreprise bi nga xam ne directeur ba jël na ko jox ko mission entreprise boobu amul benn expertise en la matière Donc, marché bi daf ko lancé ci li wax euh, euh, consultation directe entente directe consultation restreinte genre nga tan si ci ñu la neex nga jël li jox marché bi ñooñu commencé une opération de curage ak opération de euh, l'assainissement de li nga xam Dakar depuis plus d'un mois Car bi ko service de service technique

pendant un bon moment waxtaan ak mom pour corriger l'eau wax l'un des actes les plus graves moy auto 80 millions bi nga xamné ne société buy soumissionné moko jënd jox ko ñu ne ko delol auto ba parce que du yoon mu jël auto ba jaay ko certainement ñi nañ ma ay pratique PDS la mo ñom ñoo xam mais jamono dafa changer. voilà les quatre points yi nga xamné nak mo indi problème bi ba ciow li yegge ki nga moy président Bassirou jomay Faye ak son premier ministre moy Ousmane Sonko ñu xëy ne dañuy tranché direct moy jëlee ko fi sanctionné ko remplacer ko pour que ça serve de leçon mais ken nekul dans une optique de vilipender indi ciow wala weer parce que li tax ñuy mëna def précision yi parce que sénégalais yi bëgg nañ xam lan mo xew parce que guléet la sénégalais yi bëgg nañ xam parce que commencé nañ leen expliquer ni Cheikh Dieng s'en est pris li ñu wax des lobbies qu'est-ce que les lobbies c'est vrai am nit ñoo xamné depuis longtemps ñu ngi fi ñu ngi liggéey ci walum assainissement ak ci yu mais Cheikh Dieng attaqué wu ci ñooñu donc lolu il faut que sénégalais ñu mëna comprendre lolu li indi problème mu Cheikh ba nu jëlee ko fa ñeent la benn mooy oto bi nga xam ne benn service benn entreprise boo xam ne dafay jël ay marché parce que pratique la pratique boo xam ne il faut ñu dénoncer ko bëri na maa ngi maa ngi dégg wax jooju en 2012 bi Macky Sall jëlee pouvoir bi les nouveaux directeurs dafa am nit ñoo xam ne dañ leen di wax ay bukki la ñu bukki dañuy ñëw sa bureau bés bi nga faloo tàkk ñu ñëw seet si la ñu ne la ah yenu nga ñun xam nañu lu poids sociale bi nga xam ne mooy ànd ak DG yi donc lu ñu def mooy dañ leen bëgg a jàppale par exemple da ngeen di jël benn société par exemple boo xam ne euh, par exemple ah dama koy wax noonu mu mel ni ñi jaay oto wala ñu jaay imprimante wala ñu jaay leen ñu indi la benn saak boo xam ne ay millions yu bare la parce que c'est des pratiques yoo xam ne ça très su Abdoulaye Wade su Macky Sall waxtaan naa ak ay kilifa yoo xam ne def nañ leen ñu indila la benn trente millions wala benn quarante millions wala benn cinquante millions ñu ne la ñun ñoo ko nuyee ñu ñoo la ko jox pour nga jafandu si parce que xam na ni ñëpp dañ la laal ndax fal nañ la mais xaalis boobu seen enveloppe boobu seen saak boobu boo ko jëlee poison la parce que ñu bépp marché boo amati ñoom ngay woo nga jox leen c'est ce qui se passe souvent certainement la même chose moo war a xew ci li nga xam ne mooy oto bi nga xam ne ñëw nañ ko ko jox ñu ne ko delloo ko nangu ko delloo mu jaayaat bi ñu immatriculé ko mën nañ euh, numéro auto bi et tout ça mais foog nañ ni dund ci yegg deuxième chose bi ma leen wax mooy affaire brigade ba brigade de recherche euh, brigade du moins je suis toujours dans les recherches brigade d'intervention rapide ñu recruter personnel alors que le conseil d'administration n'a pas été saisi et n'a pas validé ce fait la troisième des choses c'est le choix des entreprises yi nga xam ñoo war a def mais surtout dafa def lu ñuy wax consultation restreinte jël ñaari entreprise kenn ki gaa am na expérience mais beneen bi xamul dara wala boog masuta liggéey masuta am expérience ci wàllu mboobu ñeenteel bi nga xam ne moo indi euh, coow li mooy